gis ni narul neex ci opposition bi. bëgg naa taxaw tuuti Maodo bala ñuy bala ñu ci opposition xuus gis nañ que ni ci tasim gi Mansour Faye waxoon na Diomaye bu tasee assemblée bi le treize dafa contredire boppam man dafa wax yoo xam ni dafa waroo ak la mu waxoon Cheikh Yérim Seck la même chose la confirmé ni ki démb mu ne tey la Diomaye waxoon lépp dara amu ci li Sonko waxoon moo am parce que Ousmane Sonko bi Diomaye demee Chine moo taxaw fii kanam Sénégalais yi leen DPG dafay am le 12 di ngeen tal leneen lu dul wax waxi motion de censure na ko waxee woon exactement noonu la ko amee ci biir loolu Diomaye ni leen le 13 dinañ dem lii di DPG tey entre temps mu tas ko tey est-ce que c'est légitime loolu wax ju yàqu la c'est une c'est mauvaise analyse loolu analyse boo xamante ni xam nga loolu la. c'est Yérim a dit que tout ce moom ay waxam moom wax dëgg yàlla Cheikh Yérim moom c'est pas c'est pas une référence en la matière dama lay wax lenn le président de la République. Mm-hmm. constitution constitution. Mm-hmm. quand bi ñu promulguer le règlement intérieur. Mm-hmm. de l'Assemblée nationale. Il, il avait huit jours oui. pour fixer la date de la DPG. Oui. moom huit jours pour ma ne la même Diomaye il joue contre la montre huit jours yooyu jour bi ci njëkk le pré le premier jour franc. ci la ko ci la ci la ci la ci la ko fixé. Mm-hmm. obligation la yoon moo ko wax même suy tas dafa war a fixé date. est-ce que xam nga ne amul droit gis nga ni ñuy wax ne il se dédie. Mm. amul woon droit. bañ a fixé date moo tax ñoom ils l'ont mis devant le fait accompli l'Assemblée nationale. Mm-hmm. les députés de la de la majorité. Mm-hmm. ñoo tax ñu jàppal ko date parce que xam nañ bu ñu ko jàppalee date dina jàpp date. c'est une obligation. jomaay sa waruloon xaar ñoom ñu ko date. bu mu leen ko joxee bi mu leen joxee. Mm-hmm. Euh, le ci leen war a bind laale la date de la DPG daf ko ci waroon bind. ñi jàpp date moom mu rectifier ko. il a rétabli la loi parce que c'est une obligation léegi nag mhm. xam nga ba léegi nii doo gis ku ne la wax dëgg te man je voudrais bien suñuy wax ñuy wax ci ay textes ak ay règlement mhm. doo gis ku la ne il a violé ce texte il a violé cette loi ou bien il a violé ce règlement amul amul bu mu ci dara y a un respect scrupuleux des lois et règlements de ce pays là et man j'aime bien en dehors de de de l'analyse politique que nit ñi ñuy def sur des textes mhm. léegi nii xam nga dafa am benn jurisprudence Abdoulaye Wade j'ai oublié la date de la jurisprudence le conseil constitutionnel. Mhm. dafa wax ne les paroles du président de la République les les paroles de de dafa ma jàpp ko ma expliquer mu leer. Mhm. président kenn du ko àtte ci waxam. Mhm. bu bindul. kenn du ko ci àtte. ok Abdoulaye Wade dafa ne woon du ma def troisième mandat du du aw ma droit def euh, troisième am troisième mandat. élection yi kii bi mënuma participer. moo ko waxoon ne j'ai verrouillé la constitution. opposition bi tout ça. amul na ma hmm. du fa wàcc. ci hmm. temps yi dafa yéegoon. non mooy li nga wax nii sànq li nga. li mu def dem violé fii violé na fi constitution bi. Hmm. wala fi waru ko woon def. ñoom ñoo moy ci déclaration politique ñoom ñoo moy ci déclaration politique ci ni mu ko waxee bii ñu dëgmal Ousmane Sonko dina ñoo def déclaration de politique générale d'accord ah xam nga Serigne doguma la da nga wax lu am solo loo xam ne bëgg naa gis nga la proximité entre le président de la République et son premier ministre on remonte l'histoire gis nga premier ministre mooy ki gën jege mooy ki gën a jege le président de la République moo wax la benn affaire mhm. Senghor tuddul woon sax maman président du conseil la tuddoon. waaye Mamadou Dia. mais imaginez bi ñu dindee le président du conseil ba ñëwee ci premier ministre. parce que premier ministre ñoo ngi ko indiwaat je pense su ma jëmul en 91 Abdou Diouf moo ko indiwaat Abdou la ñëwaat. Ah, ñëwoon na. bi mu ñëwee. xam nga Abdou Diouf kan la def premier premier ministre am. Hmm. Habib Thiam son meilleur ami. son ami son ami son meilleur ami. alors que Senghor lui avait demandé de faire premier ministre Moustapha Niasse. moom laa lay wax la indi. ba muy ñëwee ba muy ba ñuy indiwaat premier ministre. Hmm. Senghor avait pris euh, Abla Abdou Abdou Diouf hmm. mu ñëwee. Ablaye Wade ba mu ñëwee. kii il avait pris comme. gis nga pourquoi Habib Thiam dem Habib Thiam moo ngi dem pour ñu mën a exécuter le plan Sakho-Loum. Mamadou Lamine Loum moo remplacé Habib Thiam. mais xam nga loolu crise situation de crise la parce que dafa indi ñaari économiste ñoo xamante ni kii nekk budget ki nekk finance. mu mhm. mais ba ñu ñëwee deux mille Abdoulaye Wade ba mu ba mu gagné. parce que le premier premier ministre de Abdoulaye Wade bi tax muy wax bi nga xam ne il l'avait choisi parce que am na Mamadou am na euh, Moustapha Niass mais Moustapha Niass c'était pour des raisons politiques. Mm-hmm. est-ce bu mu indee. parce que ba mu ko ci entre deux tours yi la ko proposé mu nekk premier ministre mm-hmm. bi ñu ñëwee en bi ñu ñëwee deux mille un. Mm-hmm. Mame Madior non parce que Moustapha Niass six mois rek la def su ma juumul. Mame Madior Boye moo doon mais xam nga kan mooy premier ministre boo xam ne dafa ko choisir. Idrissa Seck. Idrissa Seck était le plus proche collaborateur de de Abdoulaye Wade est-ce que yaa ngi gis bu baax rek hmm. premier ministre rôle bi mu am non mais adduna bi mu moo demee noonu Idrissa Seck ba mu demee hmm. entre temps Idrissa Seck Moustapha kii euh, le président Macky Sall hmm. était devenu très proche de de de Abdoulaye Wade juste pour dire que gis nga le ton premier ministre mooy en quelque sorte ce jardin secret dans ta gestion. kon ñii moo tax dama bëgg ne opposition bi. Hmm. bu ñu xalaat yaakaar def seen yaakaar que ne seen succès ñoo ngi ko war a teg ci diggante xuloo Ousmane Sonko. Hmm. ak Diomaye. te hmm. bii moo raw yooyu yëpp. parce que bii kii moo fal kii. <laughs> xam nga position yi bi ñu amee doole bii moo ëpp doole. parce que bii kii moo fal kii. Mhm. dafa mel ni il détient la légitimité populaire. d'accord tey bu ñu taxee foofu Makhou ci ci opposition bi parce que ñëpp gis nañu li ëpp solo tey mooy le novembre 2024 on est à deux mois des élections législatives tey opposition bi dafa pëccëxoo kenn xamul kan mooy chef de l'opposition kenn xamul kan moo ànd ak kan tey lan moo war a nekk ni mu ko waxee ni ma la waxee keroog également la configuration politique de l'opposition pour que au et man man je souhaite a ce que ne opposition bi. Mm-hmm. le que l'opposition soit bien représentée à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. mais j'en doute. pourquoi sincèrement. avec Amadou Ba qui fii laa la koy wax. fii laa la koy wax. suñu deful ndànk suñu deful ndànk. Mm-hmm. xanaa diggante deux mois yi mu am beneen organisation ak beneen gis-gis boo xam ne kii la suñu deful ndànk. PASTEF va se retrouver la coalition de PASTEF mhm. ou bien PASTEF mm -hmm. va se retrouver avec cent vingt députés ou bien plus de cent vingt députés on était cent soixante cinq xam nga y a cent soixante cinq députés yi quinze c'est la diaspora oui cent yi su ma juumul cent yi mhm. mooy dem ci liste la liste départementale oui. mooy système majoritaire bi mhm. ñu dem ci cinquante yi mu dem ci liste liste proportionnelle bi. Hmm. mooy la la liste nationale. Hmm. xam nga foofu ça dépend mais attention il faut que les gens gis nga il faut que ça soit xal ak xalaat jiite li ñuy def. parce que gis nga la seule référence qu'on dispose c'est l'élection présidentielle. mais l'élection présidentielle est-ce que xam nga ne élection présidentielle bu demee noonu ci élection législative est-ce que xam nga ne ñett parti wala ñeent ñett parti wala ñeent. ñooy am représentant à l' assemblée nationale. il n'y aura pas de parrainage. ce sera vraiment grave non non parce bu amul laa la bëgg a wax parrainage parce que am. dafa xam nga yaa in dafa am ute entre la constitution ak ak code électoral bi. donc la constitution. moom la ñuy utiliser. Mhm. li bàyyi code électoral bi li mu wax. xanaa mu am consensus ci nan mais pour man. parrainage warul am sax. parrainage bu amul ba xamal li gën a garaaw. mooy boo xoolee résultat élection présidentielle bi xam nga résultat élection présidentielle bi mais dafa war a utiliser nit ñi dañ ko war a xool bu baax. Pastef moo ngi génn ak deux millions quatre cent mille voix. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar am un million six cent mille voix. Mm-hmm. Pur moo ci toll topp. am cent vingt mille voix xalifa Sall moo ci toll am soixante neuf mille voix Idriss mais foofu la yam ñooñu ñoo nar a am ñoo nar am représentant à l' assemblée nationale. parce que soo xoolee élection yu mujj yi. ñi demoon ñëpp ak ñi dem ay plus fort ay ñoom euh, nu mu tudd. Euh, Pape Diop Pape Diop non Pape Diop Pape Diop woon. Mhm. ci ñi am plus for reste Pape Diop moom mujjee woon. Mhm. te Pape Diop am na plus de quarante cinq mille. d' accord maanaam Idrissa Seck amul quarante cinq mille. ni mhm. attention. ay ñoom Pape Djibril Fall pour man Pape Djibril Fall foofu la waroon waxee. parce que Pape Djibril Fall il faut que moom mu xool résultat parce que man gëm naa ne c' est un bon député sincèrement. Mm. mais Pape Djibril Fall dix huit mille voix la am ci élection présidentielle yi maanaam li la le quotient électoral bi nit war a am pour am député boo ko eh, Pape Djibril Fall il doit multiplier presque par trois pour am benn député résultat bu élection présidentielle. d' mais loolu dafa dafa war a wax bi. da ngeen a war a jël seen ego ngeen denc ko ngeen ànd. te ñoo def ay opposition dafa xam ñoo dafa am ñoo xam ne ce serait ce serait des alliances contre nature mënuñoo ànd. gis nga ñi nekkoon ci opposition bi yëpp ñu ci ëpp mënuñoo ànd ak mënuñoo ànd ak Benno Bokk Yaakaar parce que ñoo ko doon xeex ak liñ ko wax yëpp. ça va <laughs> parce que te ñu bëri ñoo xamante ni Benno Bokk Yaakaar ak Amadou Ba duñu man je demeure convaincu que sax na doole ji. Mhm. Macky Sall moo ko yor doo Amadou man gëm naa ne Amadou Ba bu demoon moom rek ci ñu am mooy mm-hmm. moins de un pour cent lay lay doon jërëjëf alors Serigne foofu laay rebondir ak yow mm-hmm. gis nañ que ni tey Pastef wax dëgg yàlla seen doole ci politique bu Sénégal à tous les